suñuy politique la nekkoon nag euh, kaso gannaaw ci ay jafe-jafe yi nga xamante ne nii crise politique bi euh, defoon na ko fii ci réewum Sénégal euh, tax nag ñu daal di koy dalal ci plateau bi waxtaanee peut-être situation bi ak li fi jot am yëpp notamment tey tabb nañu njiit gu yees ñoom itamit jot ay dommages yu métti ci seen wala dund nes koy def ak xaar ak jàngat moo tax tey ñu fas yéene waxtaanee pàcc boobule Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye maa ngi lay nuyuwaat di la dalalaat ci ci réveil di la bàyyiwaat nga saafonteeg téléspectateurs yi lay waaw soxna si maa ngi lay fay. Mm-hmm. ginnaaw ma sant yàlla subhaanahu wa taala di julli sëlma ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam. waaw maa ngi nuyu waaw Walfadjri ñëpp. Mm-hmm. di wax tey ndam li ñu am ndamu Walfadjri la quoi. ndamu Sénégal la. Mm-hmm. ndamu askan wi la quoi. waaw. waaw di féliciter président Diomaye. di ñaan yàlla na ko yàlla dëgëral. bon yan bi dis na quoi. mais yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla jox teeñ quoi. amiin amiin parce que dafa yenu espoir u Sénégal gépp soo xam maa ngi dégg Seydina Omar muy wax mu ne maanaam ñun maanaam lii bu jàllul tey parce que gouvernement bi maanaam tey bu essayé Sénégalais yi maanaam du ñu amat si kenn confiance moo tax sax bu rëy mu ngi koy xaar quoi. Mm-hmm. moo tax Diomaye sas bu rëy mu ngi koy xaar. kon su ma la déggee bu baax Pastef nga bokk. waaw Pastef la bokkoo. d'accord waaw kon mën nañ jàpp ne sa tëjub kaso rëbës détenu politique lañ ko mën a jàngatee. waaw détenu politique la waaw. ci vague bi de génn ak vague Ousmane Sonko bi ci nga bokk. waaw si laa bokk depuis man man génn naa depuis depuis septembre laa génn quoi. depuis septembre waaw depuis septembre quoi. d'accord euh, bëggoon nañ quand même revenir un peu yow ban kaso nga nekkoon si kaso yi Sénégal yi. waaw rëbës la nekkoon. rëbës ban chambre chambre 2 la nekkoon quoi def naa chambre 2 def naa chambre 50 def naa waaw yan condition nga duggee bi rëbës. waaw condition yi ma duggee rëbës bon ñu ngi ma jàppale le 16 mars ko événement wu mars yi. waaw événement ma ma ñaayi quoi le 16 mars lañ ma téye quoi waaw si kaw téye bi ñu ma téye man la tax ñu téye ma dama génnoon quoi dama génnoon. dama manifester. manifester na bu bëgg quoi. paa ba ka tey lii rek lañ bëggoon tey amaana bu ñu tey lii am du am. Mm-hmm. dama Ousmane Sonko man du ma gën a gore tey mu nekk si combat bi di xeex. ma it sama kër. xam nga nga nekk boroom kër wàcc si mbedd bi. di ma nekk borom kër yor samay soxna. te soxna wàcc si mbedd bi. Mhm. maanaam di jàmbarloo. Mhm. waaw di jàmbarloo di manifester comme ñëpp. Mhm. waaw comme ñëpp ni ñu koy defee parce que sama droit la quoi. sama droit la. ci ban circonstance ci manifestation bi lañ la jàppee. waaw fekk nañ ma may taxaw di génn di di def sama joxul jaaxtu. di wax li ma metti si réew mi. daa wax samay xarit di wax li ma metti ñu ne ma ciix tey ma. nii. nii. jël la yóbbu la kaso. jël la yóbbu la kaso six mois. nga tëdd ko. ma tëdd ko. mais condition condition yi. condition yi métti kaso ñëpp xam nañ ne ko Sénégal amul amul amul amul amul amul amul rendement amul dara. condition yi métti dong nga fa nekk torture. ko ma ah bon. oui. Hmm, dañoo torturé foofu wala. c' est que torture mooy maanaam tey maanaam imagine toi chambre deux bi nekkoon ñun. presque lu jege cent cinquante personnes maanaam ñaari douse boo fa nekk. cent cinquante personnes cent cinquante personnes. douze benn moom la ñuy demee toilette benn moom la ñuy sangoo cinq heures du matin la yow mhm. xam nga franchement ne bëreet ñëpp jogandoo parce que dañuy julli. Mhm. fii tëdd fa la ñuy jullee. Mhm. amul dem si jàkk ji foofu. wala non amul kenn chambre ba nga nekk fa ngay jullee fa ngay def lépp. fa ngay tëdd fa ngay. fa ngay tëdd fa ngay jullee fa ngay lekk fa ngay naane. mais 150 personnes jógandoo fajar googu lee naka ngeen def ba dugg ci douche bi pour sangu. non lu métti lu doo yaram lu tiis. Hmm. da ngay gis taxaw ku taxaw maanaam di saw tubaab. ndax saf dafay saf ndax saf parce que imagine benn douche benn bi dañ ciy dem cabinet benn bi dañ ci sangu te bi ñuy sangoo. Hmm. maanaam si ngay raxas dab yi ngay lekke si ngay maanaam def maanaam. Hmm. dañ am moyen chaque jour ñu am benn butéelu crème bu ñuy naan ko amuñu ko. di ko jënd si gars yi quoi. waaw pour jënd amuñu ko quoi. nga maanaam maanaam daal condition yi daal euh, c'est extraordinaire même tëdd bi tëdd bi aussi nu muy demee. loolu tëdd bi paquetage dafa am. paquetage maanaam. paquetage mooy maanaam tey. gars wet la tëdd wet. maanaam tey sa bopp day féete gauche. kii kii sa wet sa bopp day féete penku. kii boppam féete saw. ngeen croisé. ñu croisé doo xamante doo xamante nga nga nekk borom kër yàlla may la ñaari soxna nga doon dund si noflaay googu léegi nga xëy benn jour premier pour la première fois nga dugg situation bu ni mel nu mu la def. non parce que man li ma dimbali mooy dama ne li ma njëkk a instruction bopp hmm. mooy dama ne lii bu ma dal woon dee mu may xaar. Hmm. man ne yàlla mën na ma musal na ma si lu bari daal. Hmm. amaana yàlla fële na ma dee fële na ma feebar. amaana am na lu doon waajal sama kaw wala muy waaj a dal sama kaw njaboot yàlla fëleel ma loolu ko <laughs> moo tax Franc Maçon ba ko dundee xam nga de benn détenu politique boo xam ne tey nekk nga rëbës maanaam maanaam yow nga doye di foofu ko amul parce que cause bu noble lañ ko xeex xam nga ñu gëm ne ñun suñuy axaar suñuy yelleef lañuy la ñuy revendiquer ñu tooñ ñu tëj ñu si kaso bi bon nag ñun dañuy tëdd suñu jël suñu jël dignement su ñu réew moo ñu ko jaraloon quoi ci détenu politique yi am na ci ay groupe ñii ay commando ñii ay force spéciale ñii ñu ne leen ay terroriste jiiñ nañ fi nit nekk yow lan la jënoo nañ leen defoon sa gàlloon sa ndodd waaw appel à l'insurrection appel à l'insurrection maanaam mooy ba ñuy jox ñëpp rek waaw yow la Ousmane Sonko jox saako xaalis ngay dëkk bi nangam nangam te fekk Ousmane Sonko man ñaari yoon laa ko gis ma gis sama dund soo ko gis ah ñaari yoon deux fois laa ko gis sama dund depuis 2021 maa ngi ko bëgg gis mu tëmi tucc de 2023 lañ ñoo jàpp mhm. koo xam ne deux mille vingt et un ngay gis. bañ koy bañ si problème Adji Sarr. nga toog ba deux mille vingt et ñu jàppale ne la waa jooju ma lay jox xaalis. te ñun Pastef ni mu Pastef mu na mu tëddee. mooy ñun ñooy génn suñu porte si def. de mm-hmm. soi la. waaw ah, ça c'est vrai. parce que dañ gëm ne dañ gëm loo xam ne da yaakaar si nit ki yow ñëw pour Sénégal pour Sénégal pour émergence am. mais li li ma bëggoon xam mooy que yow en tant que détenu détenu politique lañu kaso mais kaso ba nga ba nga duggee ci kaso bi am na yeneen détenu politique yeneen détenu yoo fa fekk yoo xam def nañ yeneen infraction yu bokk ak ay détenu politique mm. te biir na ma tey ji génn nga waaye am na ñoo xam yaa ngi leen fa bàyyi te ñi amatuñu yaakaar ne sax daañu génn kaso mm-hmm. waaw est-ce que mën nañoo xam kaa ñu kaa kaa yan waaw kaa yu métti ah. parce que tey comme ni dëgg yàlla ñu bari kaa yu franchement di nga xam ne kii di nga dégg benn waaye ne ma tëdd naa dix ans kii ne tëdd naa treize ans hmm. te dama ko enquête kii ne tëdd naa cinq ans te dama ko enquête muy tëdd mu ñuy tëdd si condition yu metti wallahi condition yu metti mais euh, c'est que ça dit ñun jéem ñu si hmm. parce que li problème bi mooy bëgguñu di leen ko xoolee di ko xoolee quoi parce que wax dëgg yàlla kaso gars yi jaamu yàlla ndox dañuy jaamu yàlla jaamu yàlla boo xam bon franchement inégalité la ngay gis foofu quoi. da ngay gis da daan dégg benn nit ñu ne la kii daan def nangam ak nangam. mais boo duggee boo ko fekkee boo boo bu yàlla nattoo ngeen bokk mhm. a taxaw ci si moo mhm. dañ bokk ndey bokk bàyyi. Mhm. xam nga maanaam di jàppalante. ñun en tant que ay détenu politique dañ ñëw changé kaso bi quoi. parce que suñuy añ mu ngi ñëw suñuy reer mu ngi ñëw ndox mi naan neex na ñoom sax daanaka dañ demoon ba tafu si ñun quoi ok man dama fa doon jàppale di jàngale di jàngale di jiite foofu gars di leen conscientiser di leen joxaat confiance. parce que nekku leen ay délinquant nekku leen ay defkatu ñaawteef ba tax na bu ñu tëjee rek dañ leen war a fàtte foofu. Mhm. donc mën nañu jàpp ba ngeen ñëwee ci kaso bi am ngeen lu ngeen fa changé lu bari. Euh, cinquante cinquante chambre ñoo fa doon jiite man sama man chambre deux maa fa doon jiite. Mhm. boo ko daan jëfandoo jiite boo ma paree vraiment joxaat détenu confiance dellu leen si yàlla xamal ne yow mi yàlla nattu nga rey nit mm, mm. wala yow mi yàlla nattu nga jaay yàmba ba indi ba ñëw fi mm. wala yow mi yàlla nattu tey ba nga maanaam violé tey jii sa fukki moroom ñu ngi koy def kañ jàpp leen yow bu la yàlla nattoo ñu jàpp la am na yàlla lu mu bëgg si yow waaw tey ji ngeen xeex ko tey ji ngeen porté benn projet xeex ko ba tey ji Bassirou Diomaye Faye toog na ñu ñu duppee ko président de la République léegi lan ngay xaar ci moom par rapport ak détenu pour détenu yi nekk ci kaso yi situation bi ñu nekkee façon de changement. waaw ñu ngi koy xaar si moom koy xaar si moom quoi franchement. ñu ngi koy xaar si moom mm-hmm. quoi. Mm-hmm. Mm. waaw. ci naka ci naka parce que tamit parce que tamit def nañ fii quand euh, euh, vote d'amnistie mm-hmm. euh, maanaam na ñëpp faxas fàtte li nga xam ne moo xew diggante 2021 ak léegi ci ay faits politiques te yéen ci faits yooyu lañ leen jàppee donc dañuy sous-entendre que tey jii lépp lu leen jotoon dal ci kaso bi ngeen dund ko ngeen ñàkk ko dund ak seen famille yëpp da ngeen koy effacer comme ça wala da di sàkku ci nguur gu yees gi ñi bëgg a teg ñu mën a xool ne si def ba mun leen rétablir. waaw man maa ngi sàkku si nguur gu yees gi Diomaye le président Diomaye quoi bon wax dëgg yàlla comme dañ ne séparation des pouvoirs moom mën na tey dawal yërmande wax lu ko neex. ne Sénégal dañ dañuy apaiser jàmm lañ fa soxla mais comme dañ ne séparation des pouvoirs man sama xel day dal te xam lañ nekk daal. maanaam ay nit te mbir yi du deux mille du deux mille vingt et un deux mille vingt trois nañ fàtte deux mille douze ba deux mille vingt et un deux mille douze ba gars yi dañ jum <coughs> a jaar si sàcc alalu askan wi luubal alalu askan xam nga sànq sànq ay nit mais moo gën a moo gën mais mais moom réconciliation la woote ah maanaam fexe ba gaa booloo nekk benn. juboo liggéey. waa xam nga tey xam nga tey bu ñu tuddoo jubóo maanaam yi ngeen fi tudd yi ngeen fi tudd yëpp dañ ko nar a fàtte teg ko à côté non xam nga tey xam nga tey wala loxo liggéey pour Sénégal mën a jëm ci kanam xam nga tey xam nga tey jubóo la job jubóo la jomaay oote mhm. jubóo lañ oote tey ji jubóo boobu maanaam tey dañ ko say fekk si parce que tey ji am réew mhm. maanaam maanaam nit ki mënul mënul mënul gérer gouvernement am mhm. si maanaam ay ay ay fayi toox yooyu quoi ay du topp nit ñi xam nga mais dama gis ne tey Sénégal on est dix-huit millions d'habitants dix-huit millions d'habitants mais je pense que ne benn 200 personnes bi ngay yoon taxul dëkk bi terewul dëkk bi am dal. Hmm. ñi ñi ñi ñi am maanaam 200 personnes yi nekk Sénégal. Hmm. dañ def seen i toj toj ba 500 yi. Hmm. maanaam si kaw 18 millions Sénégal a Sénégalais. maanaam tey dama gis ne warul mën a maanaam andi ñàkk stabilité si réew bi l'état gars yi maanaam ñu ñu maanaam tey justice def liggéeyam. maanaam justice maanaam Sénégal 18 millions la tey jii bu ñu doon calculer 200 personnes ñoo fi def njombe. ñoo fi def njombe dañ topp. dañ topp te am stabilité. foofu sax la réew mi gën a am stabilité. mais yow da nga su ma su ma déggee ngay wax da nga da nga mel ni kuy bëgg a fayantu daal. non question fayantu question fayantu la parce que jullit du fayantoo quoi. Mhm. mais tey jii li tax man man man sama cas boo ko jëlee sax mais dafa am ñu ñu rey. Mhm. waaw dafa am rey. dafa am rey sëñ bi dee yu métti. Mhm. kaso bi am na ñoo xam seen say tas na. ci si biir kaso bi da ngay loolu si jabar di taaba taaba mu toog 6 mois 1 an gisu la li dem yoonam. yow naka nga dundee loolu. naturellement ak say soxna bàyyi leen ci ginnaaw. waaw franchement dund naa ko mu métti loolu samay samay mbokk ak samay xarit ak samay am di jàmm bàyyi ñu ma quoi. Hmm. waaw bàyyi ñu ma quoi. jàpp ci kër gi waaw jàppoon nañ ci kër gi daal. jàppoon ci kër gi quoi. tey tey jii boo jàkkaarloog li nga koy njëkk a xam mooy que amoo droit kon di faillir amul droit di échec parce que da ngeen a sacrifié. non sëñ bi Diomaye. amul droit di échec. parce que ñun toppuñu Diomaye mais projet la topp. te liñ teg ngir projet bi taxaw. mais duñ dem ku maanaam tey ku ñëw di sacrifié projet bi quoi. waaw bala nga xam ne ñu bëgguñu tey mu jàdd yoon wala mu jël beneen yoon boo xam ne tey. bokkul bokkul wax bi mu ñu doon woon tey ñooñu nekk premier ennemi parce que tey jii man li ma koy xaar jumaa li ma xaar si moom mooy ñeenti mbir ñeenti mbir day xaar si moom ñeenti mbir yooyu mooy yàlla mooy la na jël bi bi saasam daf ko référence na jël yonent bi daf ko référence si ni mu yoroon dama nekkoon màkkatal mu karam mooy am réew mënul développé mukk lu ñeent yi dañ ci concentré wu maanaam dañ ci taxaw maanaam ak sévère beneen mooy diine benn moom mooy dar daru nit ki. Mhm. benn mooy daru nit ki dar. Mhm. ñetteel bi moom mooy xel. Mhm. ñeenteel bi mooy koom-koomu doomu aadama yi quoi. réew mënu développé loolu ñeente yooyu maanaam doomu aadama di tëgg mën a am compétence loo ko dénk maanaam tey du ko lubal. parce que am na diine bi. jikko bi ak diine xusnul xulux yonent bi ne diine mooy jikko bu rafet nit ku ba diine am compétence loo ko dénk ne si xulux diggante wax boromam ñaareel bi. li tax ma ma ne wàllu xel dañuy fexe maanaam tey jii maanaam jeunes yi ñu ngi naan ñu fexe bu joxe fi. maanaam jeunes yi dañuy noonu waaw. tout à fait ñetteel bi mooy maanaam yàqante der bi quoi sa morom romb nga yàq daram taxi daram lu ñaaw wax wax fii wax fii. loolu xam nga loolu moom jëmaay mënu ci dara. waaw loolu moom kii maanaam la ma tax. ñu mais la ma tax ma ne il faut ñu jël si ay ay ay mesures yu sévères. matukaay ay matukaay. waaw waay maanaam boo ne tegoo tamit am nañ fi am nañ fi ay mbir yoo xam ne teg nañ ko fi pour topp yooyu mais d'habitude même boo jëlee nit ki jël ay photo mag vidéo am tas ko ci internet bi sax boo demee porte ko bi doon te booy seet du mujj fenn. limite loolu peut-être xanaa côté boobu mais juste d'habitude dañuy wax nekk très souvent détun politique yu bëri bu génnee dañuy ñàkk seen liggéey. wala ñàkk seen taxawaay ci bi ndax loolu dal na la. waaw dal na ma dal na ma ko. ci naka dëgg yàlla na ma dale mooy am na ay chantier yoo xam ne yoroon naa ko man entrepreneuriat bâtiment laa doon liggéey en même temps promoteur immobilier xam nga ba may man dañ dañ dañ ma jàpp ci mbedd mi i ma la jàpp boo xam ne maanaam tey yow ka la jàpp maanaam waxul ne maa ngi lay jàpp waajaloo ko ñeneen jox la ay chantier tey seen loxo dañ jàppate daw nga seen xaalis xamuñu foo nekk xamuñu foo nekk xam nga seen liggéey am na benn date boo xam ne fixé woon nga ko pour maanaam tàggoo ñoom Mhm. dal boobu passé na ñoom audio ñoom xamuñu foo nekk xamu si loo nekk parce que sa téléphone tàkkul amaan am na yoo xam ne maanaam da nga partagé woo ko woon na quoi da nga yemale woon sa bopp mhm. du sa soxla du sa kenn xam nga te ñoom xamuñu la xamuñu fan da ko ñoom xam nga li ñu def mooy da ngay ñëw fekk ñu ne la kat amel nga ma nangam wala maanaam nangam xam nangam maanaam tey joxe naa ko kon ñi doon manifester du ñu woon ay euh, euh, ay jeunes rek wala yoo xam ne ay chômeurs lañ comme ni ñu koy waxee naan booy nekk ci mbedd mi euh, amuñu waaye xamuñu dara moo tax ñuy def ci mbedd wala di ko jiñ ay étudiants mais quand même sax génnoon nañ di manifester. sëñ bi moi soxna si. Mhm. man c'est 47 ans. Mhm. bañ may jàpp maa ngi trois femmes bañ may jàpp sama jabar ceebu yu yaaxal ma toogal ceebu jaga. ceebu jaga. sama kër mu ngi nooy nekk soo dee seetlu macha allah. bu ma neexoon tey samay mbir ñu doon dox. Mhm. période boobu. nga toog muy dox bu ma neexoon ma tëdd jàkkal ah, sama télévision. Mhm. mais dama ne Ousmane Sonko du nekk si mbedd mi di xeex te li muy xeex intérêt commun la man mii tëdd sama kër. man loolu moom mhm. si yoon nag. parce que manifestation sama sama sama droit la. sama droit. mënoon naa ne am naa njaboot. samay mbir mu ngi dox. xam nga sama jaar mu ngi si bonne condition samay soxna ñu ngi si ay bonne condition naa tëdd sama kër wala moral bon mais defuma ko. dama jox pour Sénégal jëm kanam. Mhm. macha allah. intérêt intérêt commun. Mhm. man joxuma woon pour intérêt personnel sama jëmm ji. Mhm. kon sama jëmm ji rek. kon tey ba lii amee yëpp Sénégal. sama baat bi lii mu deewee nii maanaam dama zimali barka démb ba sonn. kon donc yow fi nga yegg ni tey nga jaar xaw ma ñaata weer nga def kaso ak yooyu noonu. six mois six kon donc tey amoo loo ciy rëccu mais fierté nga ci am. non sëñ bi war a biir kaaba man la ma doon def jihaad la woon. dama doon taxawal dëgg. Mhm. dama doon taxawal dëgg jihaad laa doon def parce que yonent bi ne ne képp ku gis yéen lu bon naka di dee loxoom. la wax loxo mais ñun dañoo amoon carte Sénégal gi mu gën doon maanaam lii euh, mbiri fi mu àgg du mais ñii génn dañ néew. gars yi jàpp leen tëj leen ci kaso yi. Mhm. mais on est 18 millions Sénégalais. mais tey jii wallaahi 1 million rek maanaam tey jii Macky Sall arrière wala mu ñàkk nguuram. dëgg la mais ñii ëpp nañ leen tëj seen kër. xam nga te intérêt commun du xeex. effectivement en tout cas ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax et merci euh, ci ñëw bi nga ñëw partagé ak ñun euh, ce séjour carcéral situation bi nga dund mais également feexte bi nga xam ne am nga ko par rapport ak euh, continuité de la situation yëpp gis nañ ne que tey seen leader ñoo nekk ci pouvoir bi on espère que tey.

yéen lay rendre hommage. di wax ne waa waa Walfadjri yéen lay rendre hommage. parce que yéen da ngeen jàppati combat bi wallahi lazim. waaye nag seen nattu génn télévision bi kenn du ko fi tëjati ba yomal xiyaamati. <laughs> macha allah amiin parce que télé askan wi la. amiin te askan wi ñoo far jomaay. Mm. te jomaay mu ngi bokk askan mu ngi bokk si askan wi. Mm. waaw ah, na ko fi fo bi. tëjum télé moom daa bokk ci démocratie sax. bi ba pare ñaar ba pare ba pare li ma siy dolli. sëñ naa ba pare li ma siy dolli. moo sëñ naa Ousmane Sonko ba nga koy doon hommage. Mhm. wallaahi Ousmane Sonko yàlla ki yàlla fayal. amiin Ousmane Sonko yàlla ki yàlla fayal. amiin amiin. wallaahi julli dëgg ngi noonu. Mhm. Ousmane Sonko kuy sàkku kuy dama si moom mu ñaanal la. Mhm. wallaahi lazim. dëgg la am na lu ko yàlla may. am na lu ko yàlla may dëgg la dëgg la ñu ngi lay lu baax a baax Cheikh Ahmed c' était un plaisir vraiment de vous recevoir sur ce plateau euh, di compatir vraiment euh, métit yeeg jafe-jafe yi nga xam ne jànkuwanteel nga ko lépp yàlla na doon loo xam ne danga koy fàtte sa ginnaaw am aussi ay yeneen i mbir yoo xam ne ni dina nekk sa kanam ci lu baax bu soobee yàlla nga bokk kook say njaboot bokk kook sénégalais yëpp sans plus tarder dañuy ñëw ci la chronique du jour il vient de nous rejoindre Pa Assane Seck maa ngi lay nuyu bismillahi rahmaani rahim aouzu taala wa barakaatuhu naka aw def. ba a si jàmm.